koy ziar ak seen seen munti xam ne xam nga. da da ngay toog yaba. déedéet ñu dara sa dara saa fi téel ko téye bi. ñu mën koo jël waaw. dees ak yéen tam ci xaw macha allah baax na baax xalaat bi. ndax xalaat bi xaj na yéen ci boole waaye ñun bokk na ci. ndax ñu gis ne ne danoo gis ne suñ toog mën na féete féete ko kenn. yen nak xëy na kon yéen gis ne am na ñu yëngu ci mom ba tax ñu am dara lu ñëllo ci mom muy gis ko ko loolu gis te wax di leen gërëm man nak di duma ko def duma ko damo de ma japp ne o sas la ngeen na ci aski ma japp ne ma ci ci dara ngeen bëgg ma nek ci dara mm. ko jërë ngeen jëf mm. Mm. loolu rek mooy bindu ma ci dégg man da jàpp ne daal li mooy soñu waaw su fekkee doon na doon na su fekkee naa jéem naa ko góorlu mm. su fekkee jéemu woon dara naa naa jéem nag mm. waaw noonu rek noonu rek laa koy gis waaw ndax man li ma xam suñ tuwaay sox koog man mm. féete mu fépp man féete mu ko fenn kon buñ faatee na xay na maa ko féete fenn loolu man mu ko def mukk ndam waaye dama ko def ak soññ rek ak soññ rek waaw kon maa ngi di ñaanal leen sant bu baax di leen gërëm ñaan seen tuwaay mu yëngu yëngu yëpp nag ndax lii moom rek tax kenn duñu leen waa jiw tuñ rek sëñ a tax waaw kooku daal mooy ki nga xam ne hmm. moom moom moom mi ngi ñaan ku ne duñ ko sant la rek hmm. Hmm. ndax lott sant borom daal luy lott nañ ci sant ko waaw man jàpp na bu nu kenn xamee mbaa kenn faare nu mbaa kenn jël dara jëmi ci noonu jëmi mm. sëriñ Tuubaa rek tax mm. waaw nga jàpp ne mm. xëy na ab taalibeem lañu lenn lu weesu loolu mu ne as soo xam ne day jéem a ci ak bëggam di ci goon doonte ko ñu dàkk rek yàlla yàlla nañ bokk dajeeg moom amiin jëf amiin amiin amiin xanaa kon ñëpp tàllal loxo ñëpp tàllal loxo yi rek sëñ bi ñaan ndax xam naa tey ji mel na ni moom si waaye bëgg na nga ko fas ndax mel na ni sëriñ bi ci boppam mooy ñaanal boppam waaw waaw waaw fi yàgg lool te wér